salaamaaleykum mbokki lamb salaamaaleykum njëriñ yéen ñëpp ñeen yemee saa su nekk ñu ngi waxtaan yéen topp seen actualité bi nga xamante ne mooy lamb ji diggante Balla Gaye Bombardier yàgg ñu xam lamb lañu yàgg nañ tamit supporter ki nga xamante ne mooy Balla Gaye parce que ay supporters yu yàgg lañ ci moom ne mooy seen diggante ki nga xamante ne mooy Balla Gaye dañ koy bàyyi mu nuyoo maa nga ñu ngi leen salaamaaleykum Aboubacar maa ngi lay fay di nuyu si bi muy wasaare lamb di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal ngeen dépassé fii parce que xam nañ taxawaay ci làmb bi ngeen joxe ci làmb di xaar sa beneen question. Euh, jërëjëf maa nga ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy combat bi am la keroog le premier janvier diggante Balla Gaye ak ki moom mooy mooy Bombardier keroog li Balla gay bëre lan ngeen gisee li nga xamante ne mooy keroog Balla Gaye waaw keroog Balla Gaye moom lim indi la bëre ndax lim indi moo bariwul Balla Gaye ku ko xam-xam ni làmb ji faruma cee faruma cee kenn ci sama sama wax ji may wax Balla Gaye làmb ji ku ci taxaw moo man bu defee lim war a def mais keroog daa coof làmb ji ndax jàppoon na ni bëri na ak Bombardier mu fekkoo ko ci feebar Bombardier daan ko gisul ma niinu Bombardier ba léegi ndax Bombardier sañ-sañ sañ-sañ daanu ko booy ndey sañ-sañ ci làmb mu juum la ci mel ni ni waxoon na ko nee na ki nga xamante ne mooy Bombardier bu doon su ma doon conseil Balla Gaye maa ko teel na waru koo jël heure bii parce que Bombardier li koy daan. laaj na doole ju bari ak leneen ak leneen wax na ko ci li nga xam ci combat bi. combat bii nii man njàngat bi ma ci def mooy donte Balla lañ daanoon mais opportunité yi ci am Bombardier moo ko amaat avant ñoo bëri waru ko woon jëlaat Balla daa jëlee Bombardier ci suuf yóbbuwaat ko ci kaw njàngat boobu moom def naa ko ci. ndax Balla am na amaana am na ñeneen ñoo xam te waroon na bëree ak ñoom mu yóbbu ko foo xam ne dañ naan moo mën ñu ci suuf moo mën ñu ci kaw ndax combat bii nii bu fekkoon daf ko jël Boy Niang bëre ak moom pour man moo ëppoon rendement wala mu jëloon Eumeu Sène wala Gris Bordeaux mais Bombardier du mbër moo xam te dañ koy kii ñi ko fi daan ñëpp calculer Gris Bordeaux ba mu koy daan daa naxante ak moom baabooy ba mu koy daan da ko won ragal ba cof tànk bi mu bëreeg Eumeu Sène Eumeu jël ci coup arrière Bombardier yaakaar ne jeex na mu juumloo ko bi muy bëreeg Tapha Tine Tapha Tine da kaa won dama laa ragal fexe ba dóor ko ba arbitre bi jële jëlee ko ci loxoom kon yi du koo xam te ne ku ñu war a waaxu la rek daan ko daal njàngat boobu moom dama ko def te Balla Gaye aussi benn faute dafa feeñ lii sa force chaque jour moom ngay bëre Balla Gaye tànk bi ko Bombardier tegal bu fekkoon entraînement bi war contact bi war def na ko tànk boobu du ko yéem mais bis boobu da ko yéem parce que liy war ci yaramam defu ko ci. loolu moom njàngat boobu def naa ko ci baax a baax. gis na ba Balla Gaye su mee ko ah, yéen en tant que nga xamante ne xam ngeen làmb tey na nga gisee forme Balla Gaye bi ci combat man gis naa ne entraîné na mais lim entraîné du làmb làmb kenn du ci dem di physique dong. Hmm. kenn du dem ci làmb teg ko ci physique làmb pour nga daan mbër mi ngay bëreel bëree ngeen di def te Balla bi muy boo xoolee bu fekkoon contact na nii ñuy yoon nii ñu koy sinabee muy tent karaw geeg def yëpp bu doon contact dinañ ci am lenn luñ ci for lu toll ni tarfu talaay nii kon gisuma fu mu contactee contre Eumeu ñàkk contact moo ko daan bu mujj bi mbër pour nga daan sa morom da ngay contact pour nga daan ku la mën wala koo mën da ngay contact contact mooy dëgg. ku ci bëgg a dépasser fi nga nekk di nga contact del saxoo contact musculation am na solo boxe am na solo torop ci làmb ndax musculation mooy yokk doole mais boo amee doole am taamoo loo ko pratiquer du dem njàngat boobu def naa ko ci conseil bi may jox Balla gay mooy estafu Balla Gaye gis-gis bi ma ci am du dama leen di sous mais Balla Gaye daf leen a xeeb parce que ñoo ko ñoo ko mag ci làmb moo leen mag ci làmb autant pour moi. Balla moo leen mag ci làmb. moo leen mhm. gën a xam làmb. parce que ku mhm. ñëpp yéene nañ ko. Mhm. ay Aziz yàgg nañoo yor social am. mais folklore dafa bëri torop ci staff bi. Balla Gaye ki koy toogal si sax man dama ko xeeb ci Balla Gaye parce que koo mënta wax mu dégg mënoo toog ci 16 di ko conseiller. ndax Balla Gaye xalaatam moo ëpp xalaatu ki koy toogal seize waxuma nag pour sous-estimer kenn bu ma señoon daal mu fexee ñagaat boppam xool koo xamante ne xaw na mel ni moom wala bokkum xaw déggal la tuuti mais dégg-dégg daf cee des daal ci kii toog ci seizième te tamit làmb day dañuy toll ci ndoxtu foo xam te làmb day jaxasoo ku ci ne sa xel mu sell rek ngay kii ki lay conseil rek moo mën a dox defar làmb ji daal loolu moom dama koy conseil la boo ku ko ci ëpp supporters yi moo ëpp lay amateur amateur yëpp moom lañ faral ku ci bëreek moom amateur yi moom la ñuy faral na ci bàyyi xel bu baax a baax. ñoom bañ demee euh, action bi nga xamante ne am na ci ginnaaw sax gi Balla Gaye ba mu daanoo ñu ñëwaat ci làmb ji foofu coach bi waroon na liggéey ak Balla que coach bi mooy li ma la wax léegi rek dafa des coaching dafa des lu bare bari ci Balla Gaye li tax mu des mooy leen am na fu làmb di maa ngi lay koy wax léegi ni la bu ñu tollee ci ndoxtu ci xelu ci làmb ku ci ne di indi xel. kii bëree moom dañ koy wax li mu war a def mais du moom mooy waxee li mu war a def ki nga xam te ne moo toog ci moo war a liggéey ko mbaam moo war a daan làmb ji moo tax ginnaaw am solo loolu tax ñu naan mbër da war am ginnaaw Balla nag loolu dafa manqué ci làmbam ji làmb ji dafa xaw a xalewe torop maa ngi jéggulu ci kàddu gi. li bëre keroog baax na. li mu bëre keroog loolu la indi donte baaxul mais loolu la indi li mu indi nag moo bariwul loolu daa daanul daa daanul bombardier te Bombardier dama comme li ma la ko waxee rek ñi ko daan ñëpp daanee wuñ ko ci maa la mën ci tey dama laa war a daan nan laa lay daanee ci lañ ko teg. 100 pour cent géejuwaay bi mbër yi bari gisuñu leen ci an ci ginnaaw Balla gi. 100 pour cent géejuwaay beeg 100 pour cent Pikine man yooyu dese naa koo gëm parce que man damaa jàpp ni contact mooy dëgg. Ah. contact lañu war a jàppalantee. buñ bokkul di contact wala bokkuñu di sato pour man 100 pour cent géejuwaay 100 pour cent Pikine moom gëwuma ko daal. loolu moom dama koy wax mais taxaw ci saako yi ni yaa mën yaay daan ñoom ñëpp loolu lañuy ñuy consciente yaa ko mën pare nga nii ma la gisee nii yaa nga fa gis nañ ko ci Eumeu Sène Boy Niang gis ko ci Balla Gaye ak kii bi ak Bombardier bi gis ko ci Lac de Guiers ak Eumeu Sène gis ko ci yeneen ak yeneen ñooñu ñëpp 100 pour cent 100 pour cent moom 100 pour cent bi ma xaw a gis mu xaw maa convaincre tuuti mooy li may dégg parcelle te ñoo mujjee jug ni cent pour cent booloo bi ma gis ci ñoom gisuma ko ci ñeneen. nañ liggéeyaat ci loolu bu baax a baax tey jàppalante. parce que mbër da nga war a fiir ñi nga war a fiire mooy ñi dundu làmb. mais da ngay gis mbër boo xam te day dugg si sax ci saal bi <laughs> yor ndox boppam. waaw ma ngay bëgg a tas écrit ba te léegi loolu dafa xew léegi. ñun biñ ciy toll di bëre dañ daan ñëw buñ ñëwee war a am combat suñu liet na daanaka mooy dem doxi lépp kooku bu amee bisin noonu la koy dundee. keneen ki mooy yor léppam. Mm. confiance am quoi. combat yi jëm ci kanam Balla Gaye Boy Niang Balla Gaye Gris Bordeaux Balla a liggéeyaat pour sañ-sañ la war a bëre sama gis-gis. Mm-hmm. mais sañ-sañ bi tam dafa war a am xalaat ndax Boy Niang kuy maam bu ci kawam moo la mën. combat yi ñàkk yëpp moom dañoo taxaw xaar ko mais ñi ko wan maa mën ñëpp da leen a juumloo. làmb xel la daal combat jànka. day am jànka du combat jànka combat jànka bu dëgër day am. boo amee nag ñi ci ginnaaw ñoo war a taxaw wax ak mbër mi mu déggal leen teg ci te ñu xam tamit ñu xam làmb parce que làmb ku ko dundul nii xam xamoo ko de. dafa dafa manqué bu baax a baax a baax. dafa manqué bu baax a baax day ñëw wax ak moom sàcc wax ak moom. jaajëfal Fall. jaajëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal seen site bi dépassé fii dem ba àgg fi nga xam te ne télé yi nga xam moom la ñuy tudd ci àddina mu àgg foofu barakatu rasul sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf